mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs mooy seen baaraam ci gàmmoom bu mag boobu muy def ak taalibe bu bëri yooyu macha mu ngi nag fii ci famille si bi nga xam ne ñooy gàmmoo fii ci Difoncé euh, di faral di gàmm nag depuis 1937 ñoom ñu dugg ci biir xuusandi digtal leen euh, kàddu yi nga xam ne ñoo fa jugee. Brasil musidɗi gaɗo ƴeewi gari o haɓoɗo tugi o fuɗɗi o ari haw yetti jinnaɓe mbimo an a addi walla addani o wersi haalade e mbimo rutto addoy o ruttidi o ari kadi o ƴeewimo ƴewtimo haw gani tugi kadi o hofti juɓarti laawol tati maɓe sa yeehi noon ngol kam wota arto addani arto addani o ari o yetti o ƴeewima o gayni nden o ƴeewima o gayni jinnaɓe ɗe mbi puɗɗinoma ko dañde ɗo yomi addi ɗum ɓerɗon darno ndema eyi oyi ɗum noon ko tampinore ma laabi tati nayyi timma haala nden o haali ɗum haw gayni o fokkiti ɓe gari kadi haɓe jettiɓe kalani ɓoyni ɓoyde mbimimi ƴetta mbiyamo juroka basa haali ɗum hawol laabi tati e a hadija ƴamaten ɗo koye joni gakkide kamɓe baba o yewi o suudo e tew o defi ha feewi o addi tudde babiraɗo ñaami yari sangara ha ɗuɓɓiti nden yari ha ɗuɓɓiti oye jeena arewa yeccoyi baba aro ɓeɗo jangi arabilan ɗum sani tan hebrake koyno ko abou asadi minam a ho ha oɗo noon wiyama ko oumar ibnu asadi yaadi kanko woni wiyama ko kanko woni baniraɗo gorko wonande hadija ɗiɗi wiyama wayni ha ko wiyama ko la ko wayni e jaati sakrana mandilɗo noon mbiɗa isani ɗo noon ɗo ko sangara ganduɗa isani dayi noon ko bakkat wona oɗo oɗo ko sangara o ari o yettima kam totolal salah sallam o haalni neli koreji ɓe gari haɓe juuti ɓe calmininola salah sallam ɓe calminima kala mbiyani ɗum yo jomka babiraɓo nden ɓe calminimo ɓe mbimi minen noon komin aranoɓe ƴamɗino salam hadija wonde eyi min nomi rokkataji en bas kadi jama masalan o mouhamad salah sallam de bas mi rokkatami koko jige waɗ daƴija ɓoyde min gari ƴammi kono mbawi ma noon wirokata ba jotti ha juuti wawa toyiɓe jeeye ɓe jotti nden ɓe juttitima asalaamaaleykum mbokki internet mi nga xamante ni ñu ñuy faral di seetaan fii ci TMS TV ñëw leen ci seen uh, gàmmu special bi nga xamante ni ñu ngi koy jagleel rek uh, bésu yonent bi mu nekk uh, bés bi nga xamante ni bi rekk si lañu ñu teeru si lañ daal di gis yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag ñu ñëw fii ñu laaj mbokk mi laaj sëñ bi tur sant bi ak mu wax ñu rek fan lañ ne. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suma salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, ñu ngi leen di dalal fii séri rue Marsa angle Blaise jaañ ak angle Rems man mii di wax yoon yéen Thierno Hamidou Watt laa tudd maa ngi nekk sama sëriñ Cheikh Ahmed Tijane Sy ibnu Thierno Hamidou Sy di doomu sëriñ bi nga xamante ni moom moo fondé gàmm bi ñuy def fii au niveau de Rimarsa Angle Fédéral. ok euh, euh, buñ la déggee ñoo ngi rue Marsal angle Faidherbe euh, ñu ñëw fii tey ci gàmmu bi ñu buggoon xam lan moo waral li nga xamante ni bi rek moo nekk gàmmu bi ak ki nga xamante ni bi rek ñu bëggoon xam l'histoire ki nga xamante ni moom moo tàmbali def gàmmu bi fii ci rue Faidherbe ñu bëggoon xam historique bi. waaw ah, dañ ñuy laaj loo xamante gis na su ñun. ndax ay ndaw lañu waaye am na lu ñu fekkee tuuti ci ki nga xam ni moom ngay laaj ay mbiram. Mhm. Thierno Hamidou Sy benn sëriñ la boo xam ne mi ngi jóge woon fu ñuy wax xuuta dëkk bi ñuy wax Fane yàlla indi ko ba fii ci Cap-Vert bi mu fii ñëw toog fii di jàngale alxuraan buy jàngale alxuraan nag fii la ko yàlla teg mu am fi mbooloo bu baree bari yàlla def moolitu nabi bu jotee si ndigalu xalifa yi fi nekkoon ku mel ni sëñ Babacar ibnu Alaaji Malik ak Cerno Seydou Nourou ibnu Ahmad ñoom ñoo ko palante fii mu tàmbali fi gàmmu gi en 1947. 37 en 1937 ci la ñu commencé di gàmmu gàmmu fii mu nekk premier gàmmu boo xam ne gàmmu Cap-Vert la ñu koy wax gàmmu tukulóor yi moom moo ko fi njëkk a def. kon bi mooy combien euh, édition. waaw bii ñu bi mooy quatre-vingt-quatrième édition. quatre-vingt-quatre édition. ah 84e édition. waaw euh, kon euh, bëggoon nañ xam balaa ñuy dugg ci bés bi bi nga xamante ni ki nga xamante ni moom moom bés bi di sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi euh, ki nga xamante ni moo gën gi mindeef waaye buggoon nañ xam davantage ki nga xamante ni bi rek mooy Thierno Hamidou ki nga xamante ni sa turandoo la bëgg nañ xam historique ba tax ni tamit bëggoon nañ xam lan moo waral mu tànn bés bi nga xamante ni moo nekk bésu yonent bi di ko màggal di ko ziyaar di ko ko di ko màggal ñu bëggoon xam loolu di sori bi comme niñ la ko waxee rek moom dafa yàlla moo ko jëlee ci fan ay indi ko fii mu nekk fi di jàngale ay taalibe di jàngale alxuraan toutes les branches de l'islam da koy jàng daan na ko jàngale si li jot jot a noté jàngal na presque ay mille huit cent et quelques ñii ay imaan la leen def ñii mu def leen ay muxaddam ñu nekk ay imaam muy delluwaat seen dëkk sous région bi muy Sénégal Guinée Mali Guinée Bissau Gambie ak yeneen i dëkk ñëpp taal seen ay taalibeem fii la jóge ci daara ji. daara ji mi ngi fii ci biir moom moo doon jàngal façon xam-xam boo yaakaar si àdduna yàlla jox na ko moom koy jàngale fii am na problème kii yoo xam ne question yoo xamante tey si lislaam bu réeroon kilifa yi fi nekkoon moom la ñuy ñëw laaj mu génnee wax leen ko. macha allah euh, bu ñu weesoo loolu dañ lay laal sagam euh, yow yaa yore wàllum organisation bi nga xamante ni mooy bésu tey waaye ñu bëggoon xam seen organisation nan la demee nan ngeen naral gàmm lan nan ngeen ko naree woon ba ngeen yegg si fii nii euh, ci bés bi nga xamante ni moo nekk guddi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu bëggoon xam nan ngeen yore woon organisation. lii moom li ñu fekk la si waajur yi depuis ñu la ko waxee depuis 1937. gàmmu ngi commencé ñi fi nekkoon nekk ak sëñ bi yàlla def ñuy dem gàmmu gi lañ ko doon def ba ñu koy génnee ci biti ñu koy génnee ci biti muy dem ni yàlla def ñii di wuy gi seen borom nekk fi ba yàlla def en 1988 le 6 décembre 1990 88 ci la dugg wuy ji boromam muy bésu mardi yàlla def El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh moo fi nekkoon ak Thierno Mountaga biñ leen ko waxee ñoom ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu ne ah moom comme dafa am loo xam ne la ñaanoon ne su yàlla defee li nañ ko denc fii si zaawiyam bi si jàkk ji nga xam ni fii la doon jàngalee alxuraan su loolu kiiwee ñuy delloo ko si dëkkam ca Fanay waaye El Hadj Abdou ak Thierno Seydou ne ku toll ne kooku. kenn du ko dégg génnee si Cap fii di ko yóbbu ñu dem gisi dans l'époque président Abdou Diouf moo fi nekkoon si guddi gi la Thierno Alaaji Abdou Aziz àndax Thierno Seydou ñu dem fekk Abdou Diouf biir palais biñ ko ko waxee Abdou Diouf dafa gëmee ko Thierno Mountaga Abdou Diouf dafa ne ah man de wax dëgg yàlla lii ngeen ma def man sama yàlla moo ma baaxee si moom ku mel nii nekkoon ne fii ci biir Cap te man xaw ko ba tey yàlla jëlee ko fi ngeen ñëw di ma ñaan pour ma jenc ko fii mënoo ngeen dem si gouverneur walla préfet waaye man la ko yàlla kii si saa si mu defar ko defal leen autorisation yu inhumé ko fii ci biir Zawiya bi en 1988 ci la doomam Thierno Ahmed si nekk xalifa bi toog fii Thierno Ahmed si tey moom mooy xalifa kër gi waaw dañoo bëggoon xam rek organisation bi nan la demee. organisation mooy li ma la wax organisation par étape la dañ ko donn si mag ñi. Mhm. mag ñi dañu nekk suy ñëwee seen doom yi ñoo ko yor yëf di dem di dem ba tey mu egg fu mu egg. Mhm. parce que taalibe yi ñoom ñooy organiser jàng. waaw jàng yi fii jàng yi amul dara loo xam ne dañ koy dem di koo waliyaan. Mhm. taalibe yi seen ñaq seen dërëm seen ñaar dërëm moom la ñuy cotiser moom la ñuy defaree gàmm. waaw suñu dernière question xaaral suñu dernière question xaaral ma laaj ko yeneen dernière question dernière question bi mooy li nga xamante ni moo lëmbee jamono gi mu nekk wàllum li nga xamante ni kaddu du du ñaaw jooju la président Emmanuel Macron daal di jël jëlee maanaam dafa mel ni dafa daal dafay xeex lislaam te foog naa loolu euh, sénégalais duñ ko xool àdduna duñ ko xool bépp euh, réew jullit duñu xool seetaan lool ma bëggoon la laaj yow sax xalaat ci wàllum loolu ban kàddu nga ci mën a wax. xam nga tey dañu nekk ci jamono boo xamante ni. ñun ñoo si tombé waaye yonent bi du tey lañ ko commencé xeex. Uh-huh. biñ ko commencé xeex yàgg na waaye tey soo gisee ñu nekk fii si àdduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax. Uh-huh. yonent bi moo tax ñu bind ñu. ñoom ñoo ñu di caractériser yonent bi tey. Uh-huh. yonent bi moo tax ñu bind leen. yonent bi yàgg nañ ko xeex du tey donc nag lii ay bees bees la yu xew rek ñu ñu tomb ci jamono jamono di ko kii waaye yàlla gis na yàlla moo koy fajal boppam. métti lu nañ ko nag ndax ku nekk bëggoo sa yonent ñu laal ko waaye ñu ngi koy métti lu ndax yonent bi dafa am lu mu wax loo xam ne su nekkee ko loo xam ne mën nga ko fajax sa loxo nga faj ko boo ko mënu fajax sa loxo nga métti lu ko ñun métti lu ko te bàyyi nañ ko wax yàlla képp ku si wax si yonent bi ñun yàlla lañ lay bàyyi ñun suñuy ñaan lañ yor mhm. dañuy ñaan bàyyi lépp si loxo yàlla Cheikh Ahmed Tidiane Sy macha allah euh, gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur ñu bëggoon xam tey ci bés bi nga xamante ni mooy bésu yonent bi ñu bëggoon xam euh, yow lan moo ci sa kàddu tey euh, en tant nga nekk jullit en tant que tey ngeen organiser géew bu mag bi loolu yëpp pour màggal bésu yonent bi ñu bëggoon sa kàddu rek nga sànni ko ci. li jiitu maa leen di wax. maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën sell ci lislaam muy assalaamu aleykum di leen yéegal seen yéeguwaay nu mu gën kawe te du kontaan trop ñu am événement bu mel ne nga xam ne amul événement bu ko gën muy guddi yonent bi ngeen bàyyi seen itti bàyyi seen nelaw bàyyi seen ñëpp ñëw pour wane li ñu nekk ci moom mhm. kontaan nañ ci trop. ñu leen di gërëm di leen sant. Mhm. di leen déglu nag ci éventuelle question boo leen am pour ñu mun ko topp. Mhm. waa euh, bëggoon nañ xam aussi tamit euh, li nga xamante ni rek euh, dañ lay laaj yow mhm. en tant que jullit ci li nga xamante ni moo nekk maanaam kaddu bi nga xamante ni moom la Emmanuel Macron wax maanaam ci wàllum l'islam yow ban jàngat nga ci am. jàngatu yonent bi rek lañu ñu am ndax yonent bi lim ñu xamal lum ñu jàngal te yàlla moo ko doon dicté ne ko wasbir ala ma yaquluna yow prophète bi maa ngi lay wax nga muñ lépp luñ la munti wax lu mu munti doon ndax bu leen fàtte ne ci xolam bu sedd ak muñ munam ak mbaaxam loolu mooy indi lislaam bi mu toll fu mu toll donc depuis bu àdduna jógee ba léegi yàlla dafa def dafa am ñi nga xam ne noonu la leen yàlla sàkkee dañuy ñëw pour jam dañuy ñëw pour tilimal dañuy ñëw pour taqal lislaam wante lislaam kenn mënuma ko taqal ndax ci yàlla loo jógee dafa am ñu nga xam ne nag il faut mu metti leen ndax man bi may njëkk dem Europe c'est dans les années 78 mais benn grand mosquée moo fa amoon muy mosquée cinquième arrondissement mais léegi France ay junni junni junni mosquée moo fa am seen doom yaa ngi dugg ci l'islam bi ñi ñuy jël di leen yóbbu pour ñëw yi nit ñi ñu ngi dugg ci l'islam bi donc moom lañ gis religion bi nga xam ne de jour en jour dafay gën law dafay gën yaatu foofu dem nañ ba seen préfet yi dañu ne bu kenn autorisé benn maa nga am mosquée léegi musulman yi dañuy cotiser jënd ay mosquée jënd benn terrain ñu tabax ko defar ko bu mu baax donc ëpp na leen doole mënatuñ ci dara donc li ñuy wax nii wàññiwul dara lu dul lu mu yokk dafay tax seen doom yi gën gëstu sax ki ñuy xarab Mohamed mooy kat donc ñu nekk ci ñu nekk ci. incha allah man wóor na ma ni ndam rek la ci am donc li ñu yàlla wax ci yonent bi ne ko yow muñal ci li ñuy wax muñal ci li ñuy def ñoon ci lool rek la ñu kii jarul yuuxu jarul saar jarul wax lan nañuy jàpp foofu rek ñu xam ne yonent bi moom lépp loo ko def lu mu munti doon dafa mel ni yàlla nga ko dafa mel ni dinaa déggal sa kàddu gi ndax nee nga dafa mel ni affaire yi day gën a yokk ndax seen doom yi ñooy ñëw di tuub. Euh, dugg ci diine lislaam dinaa ko déggal parce que sànq gis naa ci net bi ci YouTube bi ñu ñu ñu wone ni am na yenn doomu français yi nga xam ne ñu ngi tuub dugg ci diine lislaam loolu ban jàngat nga ci am. loolu sant yàlla bu baax xam ne diine bi diine dëgg la. parce que soo gëstoo xool ba xool dëgg la ñoom seen mag soo ni ñi nga gënoon fonk ba ci ay Cousteau commandant Cousteau ak ñeneen ak ñooñu ñooñu ñëpp dam nañ ba gëstu gis ne l'islam bi mooy dëgg donc lu leen sonnal la lu leen tiital la aussi parce que wóor na leen ni fii ak dix wóor na leen di ñu ngi toll woon ci ay soixante millions dinañ dem ba mu ëpp ba mu nekk lu kenn xamul Russie noonu Amérique noonu foo dem noonu donc ñu ngi sant yàlla bu baax te xam ne lii incha allah luy law rek la ñun nag duñu fayanteeg ñoom duñ leen wax dara ki ñuy xas ki ñuy wax dara nañu toog fi ak at ñoom dinañ gis li leen di dal ak dinañ xam lan incha allah jërëjëf. leen di sant di leen waaw ah, mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu jógee di foncé ñu ngi nag fii ci Massalikul Jinaan Massalikul Jinaan nag xam ku ko xam-xam ne juma bu mag la jumaa murit bu mag la fii ci dakaar nit ñi nag di ci faral di gàmmoo lu bëri bari macha allah mu bëri nit trop trop trop trop ñi ngeen koy gis noonu ci PC yi ci image yi dafa bëri ni trop trop trop ñu fas yéene nag dugg ci biir xool waxtaan ak nga xam ne ñoom internet yi safoo di seetaan euh, TMS TV euh, comme niñ leen ko waxee woon muy seen plateau donc ay plateau spéciaux yoo xam ne ñu ngi leen koy defal nag tey ci wàllu gàmmu gi di wër euh, gàmm yi nga xam ne moo am Dakar donc dem nañ ci Cheikh Ndigal seen sëñ Baara mu Cheikh Ndigal Sène dem ci donc Hamidou si ñu ngi fii nag ci Masaalikul Jinaan fas yéene waxtaan ak mbokk mi laaj ko turam ak santam laaj ko ni mu dundee gàmm gi sëñ bi ñu ngi lay nuyu tur beeg sant bi. maa Mm, lan nga ñu wax ci gàmmu gi tey bi nga xam ne yaa ngi ko def ci Masaalikul Jinaan noo ko dundee. Masaalikul wax dëgg yàlla gàmmu gi daal. Mm-hmm. ñu ci sant yàlla. Mm-hmm. ndax lii ah Sëriñ Tuubaa rek moo mën lii. Mm-hmm. di ci sant El Hadj Mbackiou Faye. yàlla wéral ko. mu gudd fan yàgg fi lool. barke Borom Tuubaa. xam gi ne dëgg yàlla moom tubaarkàlla. Mhm, tubaarkàlla sant ci sant rek ñu donc depuis ñu kii Massalikul Jinaan mhm. donc depuis daaw fii ngay gàmmoo. daaw at at mu jot mu ne fii laa ga fii lay gàmmoo. Mhm. man maay ancien chef bu may wax ne man maay ancien chauffeur am. ancien. maa koy jëkkal dawalal. Ah, ancien chauffeur. Mbakiou Faye. Mbakiou Faye. waaw dëgg la dëgg la. macha nga bokk ci organisation bi. lan ngay wax mbokk taalibe yi mbokk murid mbokk taalibe yi maa ngi leen di. di leen euh, gërëm. Mhm. di leen sant. Mhm. lii. Mhm. Sëriñ Tuubaa rek moom man lii. loolu daal loolu laaj ñu loolu laaj tey di bés bi nga xam ne dañuy màggal yonent bi macha allah ñëpp di ko màggal nga xam ne mooy gën gi mbindéef nga déggoon nga njiitu France boobu nasaraan bi doon wax ne dañuy continuer di dessiner di saboter euh, donc yonent bi yow lan ngay wax ci loolu lan ngay wax kooku kooku daal wax dëgg yàlla man moom daal mënuma wax ci dara li mu daal moom xam naa waaw ku ne xam na lu muy wax moom yoo xam xam nga li ma la wax. Mhm. waaw du waxu nit daal. waaw li ñuy wax daal wax yi wax yi nit daal waxu fi moom. Mhm. d' accord ñu bàyyi koog yàlla kon mu d' accord. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj ci TMS TV. waaw naa ñu ñu sant sant jëwriñ. Mhm. Alaaji Mbackiou Faye. ndax lii. Sëriñ Tuubaa rek man lii. macha allah. ñu ngi sant ko sant. mu gudd fan yàgg fi lool. ànd ak wér. Mhm. d'accord waaw jërëjëf. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. ok jërëjëf. léegi. ci organisation bi fii ci Massalikul Jinaan wala. ah Macky sa nijaay la. caméra waaw. Euh, naka nga dundee gàmmu gi ren ci Massalikul Jinaan. teel la ñuy ñëw jàpp si liggéey bi. Mhm. ñu di leen gërëm. Mhm. parce que guddi gi moom yombul mhm. moom li ñu si am di gërëm sama tonton yi. sama mbokk ñëw nañu jàpp si liggéey bi vraiment daal kontaan nañu bu baax. lekk yi doy na lépp dara manqué woon. donc mu mel ne taalibe sëñ Karim nga mais dañu gis ne fii ngay gàmmoo donc depuis daaw yaa ngi fi gàmmoo wala. waaw chaque année fii laay gàmmoo. chaque année fii laay gàmmoo taalibe sëñ Abdou Karim la. Mhm. ñëpp benn la taraxe yëpp benn la ñuy ñaan sax année ñu yàgg ko teewaay at yu bari di ñaana Cheikh Mountakha xalifa général des mourides mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal sama jëwriñ Serigne Abdou Karim Mbacké borom makaarimal axlaa mooy mu yàgg fi loolu te wér ak taalibe yëpp ak képp suñu dugg si yoon soxna may laxaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp lan ngay wax sa mbokk taalibe yi pour jeexale foofu mbokk taalibe yi wax daal ñu gën a fonk liggéey bi gën a am pasteur si liggéey bi gën a am taalibe mm-hmm. parce que Serigne Touba moom képp ko liggéeyal na la leer ni ëllëg dina la fay parce que sëñ Tuubaa rek lañ am. waaw kontaan nañ trop di gërëm taalibe yëpp lépp dana daal. ñu ak Baye Fall sax di gërëm bu baax yéen it yàlla na suñu borom fay leen si barke Seexul Xadiim. waaw yaa ngi ci TMS TV looy wax ci TMS TV. waaw di leen yàlla ngeen dem ba mel ni télé yëpp fépp si adduna bi. ñëpp di leen déglu di leen seetaan si barke Seexul Xadiim. jërëjëf ñu ngi